Euh, tey sax ba ñu yeewoo euh, kii di euh, coalition bi di ba PDS Parti démocratique sénégalais ñoom it taxawal nañ seen coalition coalition bi nga xamante ni waa bokk gis-gis ak AGPADC yëpp ngi ci biir sax gis-gis par rapport ak ñaari coalition yi nga xam judd nañu ngir gën a mën a waajal élection la xam nga ñun ci politique la nekk eh, bu ñuy xool rek coalition bi juddu tey mm. bu PDS boobu la war a gën a bàyyi xel lu tax loolu ndaxte coalition bale Ousmane Sonko mm. soo xoolee ay tur la ñu yor nii rek mais amul benn parti bu am doole bu fa nekk. ah Boga nga wax rek si bu dee Khalifa Sall. Mm-hmm. Dakar lañ doon laam-laame. ndax Dakar boo xoolee ak ni situation yi demee li si ëpp si dakaar ñàkk na ko. Mm-hmm. bu dee Barthélémy Dias Barthélémy Dias mosoo ko gis mu mu mu jëkki saa yi organiser meeting bu rëy ne base politique ma ngi nii mosoo ko gis moom Barthélémy Dias. kay li mu man mooy na mbooloo mi bari mu ñëw fexe jël micro soo fa wax fa li mu fay wax dem ñu ne Bart Bart Bart mu dem yoonam. wala jékki saa na nag ay affaire comme li mu def barki Demba Ndiaye ci commission électorale xaaral rek ma wax la rek Barthélémy Dias base politique bu tax ñuy wax amu ko boo gisee muy rey boppam ci coalition bi pour jiitee seen liste bi foofu pour mën a nekkaat maire kese moom fu intérêt nekk dafay dem jaamu fa mais mu jaas ku ne xam ne ne amul base politique wax mën na waa wax ju bari nag mën na ko moom waaw wax ju bari moom politique da ngay def ni man fa dëkk da ngay dem ut nga xam ne heure boo jógee ñu jóg te loolu da koy liggéey ay at doog ko am man ñu sama base politique maa ngi koy liggéey depuis APR depuis Dekol Ngor. lan mooy base politique am ah Batta ba tey. base bu ko koo gis mu organiser boppam meeting bu mag. ñu ne Barthélémy Dias mooy meeting fii génne leen ko boo ko am bu ko amee. te nekk na sax maire maire Sacré Cœur. non lu tax mu nekk dafa ndànk lu tax mu nekk maire Sacré si lan la ko amee Benno Siggil Sénégal si la bennoo Siggil Sénégal lañ ko dañu bokkoon yaa koy fàttaliku si Benno Siggil Sénégal mm-hmm. la ñu bokkoon bi ñu ñëwee élection yi président gagné ñu dem euh, euh, Benno euh, Benno Siggil Sénégal yàlla def ñu dem ci élection yi ñu jox foofu quota moom mu gagné Khalifa Sall gagné Khalifa Sall nekk maire Dakar moom mu nekk foofu gis ni ci ndimbal laa la gagné kese mais gis nga élection yi maa la ko munul fexe fexe fexe ba gagné élection yooyu parce que man dëkkuma fa mais maa ngi fay fréquente guddeeg bëccëg ba ma fay dem. sacré dama fay dem ba may fréq am naa fay xarit yu baax. may waxtaan ak ñoom mais ñoom seen wàllu bopp ñoo njëkk a si ci baat mais nag ñu tamit suñu ko ne la wut beneen bi mooy usman Sonko. Mm, sa xarit Ousmane Sonko eh, dana xam ni sénégalais yeewu nañu ci moom. xam nga man bugguma toog di xas sénégalais dañ koo bëgg nag. defal ndànk rek man bu lu maa toog bugguma toog di xas nit. parce que lu yëfu gor mais Sonko li mu foog ak li am bokkut il se trompe moom moom bu yaakaaree ni nekk na président xaatim ndax na boppam li nga dem ay élection dana leer dana leer ñu nga dem ay élection dana leer. mais première participation ci présidentielle na leen ko. xam nga lu ko andi mooy cinq candidats lañu te Karim Wade bokk ci xalifa Sall bokk ci li ñu dooti ay dofuñu xam nañ la xew mais waxu waxuma dara sax mais. moom boo gisee ni muy défale woo si kaw président di jekk président lu mel ni xame di wax lu ko ne te tegu ko fenn danaa la wax benn affaire ah Ousmane Sonko moo dàq sos billahi wallahi taalaahi man maag moom ñoo nekkoon assemblée moo dàq sos moo dàq waxul dul dëgg Ousmane Sonko nitu fitna la <clears throat> xoolal problème yi fi am te ñun xam nañu lépp <clears throat> nan ngeen xam xam nañu lépp ba ci xale yi dee yi xam nañ ci lu bari xam nañu lépp gis nga keroog bi affaire bi am Abdou Mbow mu may dégg dama demoon Gàmbi ay ay jàng ñibbi si ànd ak suma benn goro moo doon daw oto bi fa lañ demoon si seen jàng seen jàng papa bi ñuy ñibbi si bag bi maa ngi gis ñaari bis ñoo xam ne ñu ngi sol ay tëree ay jiina yu kenn xamut ne Sénégal la ñuy yem dañuy jàppale ji Ousmane Sonko ci ci ci manifestation yi ti tarankoon Abdou Mbow laaj ko maa ko wax maa ko woo téléphone wax ko ko ak beneen ministre boo xam ne bëgguma tudd turam mais Abdou sañ naa tudd turam man leen yéen jël seen matuwaay xale yi da nga see gis kenn koo xamee ni ñu ne police wala armée bi bal bi la ñoo moo moo feeñ si xale yi gis nga ko am na su koo xamee ni mooy ki dee Kër Masaar ñu ne paaka lañ ko jam ki dee fii lu mu tuddati parcelle tamit paaka lañ ko jam si dënn bi Ousmane Sonko dem na fa di jaale nan leen porté leen plainte ak ñoom ñu ne ko porté wuñu plainte ndax autopsie bi wane na ni paaka lañ ko jam am na koo xamee ni ci boulangerie bi bi la dugg yu taal Orange muy dimbali nit ñi fa dee ak ñeneen ak ñeneen amul kenn ku ngeen gis ku wane ne lii police wala gendarmerie wala militaire yi ñoo leen rey bëgg wax foofu ah li leen rey ñoom si seen biir la système boob gaa yi xam nañu ko nag li ngay wax rey na de non ah, li may wax moo am li may wax ñoo am li may rey seen biir la nañu rey rey fii kenn rey fee kenn rey fee ba xoolee boo xoolee dee ni mu tegloo sax nga xam ne yaa quelque chose nag dee nag yàlla yàlla mooy dogal nag waaw mais mais sabab bi fan la gën Ousmane Sonko avant affaire bi am lan la wax Macky Sall sa loxo dina takk deret nga xam ne combat mortel la wàcc leen jën leen ngeen xeex ana jabaram ana doomam ana ay magam ana ay sëram mu ngi leen làkk biir këram jël ay doomu jàmbur raylu leen wàcc loo leen ci mbedd bi ñu xeex non loolu mi ngi suñu kanam nga yaakaar ni xale yi deen yi dañ koy dañuy deen yi après jeex na nii mu jeex ni comme ça man am na ko ma ci dëkkal Cambérène 2 mm. su ma su ma deuxième bi fa la dëkk mais vraiment su ma gisee yaay mi sama adduna yëpp tukki jàpp ay xale génne leen ci mbedd mi rey leen nii comme ça ñu def te ñoom doo leen gis mukk manifestation am ñoom ñu dem doo leen gis mukk mukk ñu am moom kat dañuy jiital nit ñi ñu dem rayante ji dee wala xam nañu manifestation boo ci génnee bu ñu la jàppee dañ lay téye 24 heures wala garde à vue dañ lay téye 24 heures après libéré la ñu dem joxe seen bopp ñu téye la ñu ne waa jàpp nañu diw jàpp nañu diw léegi nag ay doomu jàmbur di ci dee pour lan loolu dañuy sénégalais yi ñoo war a ñoo war te yeewu nañu ci politiciens yi fi ne Ousmane Sonko bu doon woote naan nañ leen dem dee du gis kenn parce que sénégalais yi yeewu nañ ci moom man fu ma dëkk rek géejawaay xale yi ko topp ñëpp banan ko parce que xam nañ ni kii c'est un trompeur te nit du jiitee nii réew mais coalition bi ni mu jógee nii ak ñi ci ñi ci ànd yëpp ku ci mel ni ñoom gis nañ nag coalition bi Bougane Gueye Dany moom génn na ci dama ñu ne Bougane sax moo ëpp sens Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany moo ëpp chance fukki junni woon Ousmane Sonko. bu taxawee li mu war a taxawee moo ëpp chance Ousmane Sonko Bougane gis nga tournée yi mu def ay ñu fidèle ñu ko ñu ko ñu ko bëgg ñu ko topp ñoo ko ñoo ànd ak moom mais par rapport ak Ousmane Sonko. Ousmane Sonko lam yëpp la mais li mu avancé comme raison que ni parti bi dafa teel a jël li nga xamante ni moo di xaarul kanamu Ousmane Sonko. waaye dama ne la Ousmane Sonko xam lu mu bëgg. ñëw leen yéen ñëpp ma taxañ leen ngeen topp sama ginnaaw ma jiitu. mais loolu su amoon nga defan kii di Khalifa Sall dina ci ànd. kan si Khalifa Sall. mais looloo am Khalifa Sall moo war woon dugg foofu sax Khalifa Sall war woon topp sax si ginnaaw Ousmane Sonko. tax mais non Khalifa Sall ak expérience politique bi mu am ak fi mu jaar yëpp d' accord ndog day am yàlla day dogal lu ko neex si jàmmam mais nag war na mën a relancer wu tegu si yoonu boppam ut ay conseils yu baax mais pas mu topp ay baat li mu jaas yi nga xamee ni waxu bopp waxu xale rek la ñuy wax ah daa defal nangam defal nangam pourtant Ousmane Sonko eh, Khalifa di topp eh, topp ci Sonko kii Ousmane Sonko ah Sonko il n'est rien lenn rek moom xaw a ci moom. mën nañoo de l'opposition. a nekk c'est numéro un de l'opposition. waaw lu tax mënu nekk mhm. ba eh, benn kii électorat duñ ko wàcc mukk muy les vingt cinq pour cent PDS duñ ko wàcc mukk bu ñu élection bu ñu dem même bi ñuy jël nguur gi si Abdoulaye Abdou Diouf sax vingt cinq pour cent la ñu ko daanelee hmm. duñ ko wàcc mukk ba ñu ñëwaatee élection vingt cinq pour cent la ñu amaat hmm. PDS ñu ngi fi nañu xaar élection yi ba xam seen coalition bii bu Ousmane Yewwi au contraire tànkal askan wi la tànkal askan wi wax ju bari mars nangam nangam ah, ay gii mari sañaar ñooñu nga xamee ngeen baal dañoo bëggoon amal ab mars ay c'est des ay dof lañu gii mari sañaar moom bu yeboo ay mbokkam dem faju ko mais moom ku ne xam su ma ko xëyee te tuddul président Macky Sall te kaay ma wax la benn affaire président Macky Sall du seen morom te du mës a doon seen morom. Mm-hmm. d'ailleurs fi mu jaar ci administration jaar ko ci état yàlla jox ko réew mi mu am vision bi nga xamee ni moom la bàyyam amoon di Ablaye Wade. Mm-hmm. ñëw yeggali loolu ba def lu ko raw. Mm-hmm. tey Sénégal foo dem xool sànce yi. nga xam ni Sénégal vraiment tey am na ñoo xamee ni boo leen yeewoon Léopold Sédar Senghor boo ko yeewoon tey. ne ko Sénégal a ngi nii danaan du fi bàyyi woon. ndax dana xam ni vraiment li mu fi bàyyi woon président Macky Sall def na lu fooxa lu ko raw fuuf. mais lim ko fi def tamit tey ji Sonko bu nekkoon président mun na fi def tamit. lu bu ñu ne wax Sonko fii réew mi président. Bougane nag yàlla. du ma yàlla mais nag xam nga tamit doo yàlla. Sénégalais bay fekk Ousmane Sonko di ko koo xamee ni yow syndicaliste rek nga mës a doon. mais su programme am intéressé Sénégalais yi. ban ni ñu ngi jëm ci élection nañu ñu yegg Ousmane Sonko fan la mën a jaar ñun ba gañe ba gañe coalition Benno Bokk Yaakaar jaar nag bugaa la mën a jaar ak lu mu bon bon bon Macky Sall am na président Macky Sall am na bilan na bilan ñoom ñoom ñoo xam ne tax ñoo président Macky Sall na jeexal dem yoonam xam nañu ñoom fekk mu ngi fii nekk di ko bëgg Sénégal di ko jox fekk mu ngi fii nekk di ko bëgg Sénégal yi di ko fal c'est le meilleur président doomu Ablaye Wade la président Wade ko jàngal moo ko nampal kon léegi yow foofu dangay ngay dëggal li ñu wax ni que ni président Macky Sall ak Abdoulaye Wade amuñu réeroo amuñu am na sax ñu dem ba jàpp ni sax coalition bi ñu teg nii ñoom dama lay wax benn affaire ku la wax am na réeroo waxul dëgg ku la ko wax man Bougazeli maa la ko wax président Macky Sall président Abdoulaye Wade baayam la mm. ñi ngi déggante ñi ngi waxtaan mm. ñi ngi diisoo mi ngi koy xelal dama koy wax fii seen plateau laa la koy wax. kon nañ jàpp ni coalition bi mag président Macky Sall mu ngi ci ginnaaw. coalition bi bi moom xam naa ne daal président Macky Sall. cër bi mu war a jox président Ablaye Wade jox na ko ba mu mat sëkk. te ñu ngi déggoo ñu ngi waxtaan mi ngi koy digal mi ngi koy mi ngi